gënuñu ma pànk waaye président Abdullah ragal mu dégg ni sama mbokk ma nga saaga sañuma ko sañuma ko mukk lii sëriñ Abdou nettali ca Modibo Keïta ja te mu woolu ma ñu ñëw jël si ma ci oto ma fekk ko ca Petit Palais ma nga solu toog ci divan ba fees ko del ba ñëw mu ni ma dama bëgg waxtaan ak yow ndax danga nekk ci prison bi bind leetar leetar ba metti ma lool euh, ma gis ni bien que metti na ma la nga ca wax yépp dëgg la metti na ma nag ndax sama yaakaar yépp ci fédération du Mali laa ko teg te wax nga ma ni fédération du Mali dana daanu wax nga ma ni ay prostituées politique ngeen بالله والكتاب mu ni ma wante li ma metti yépp mën naa ko muñ a tey soo ma diggalee ni dig ma dimbale ma ni ko nag mënuma ko ma ni ko ndax la ma gëmoon rekk laa gëm te xam naa ni fédération du Mali du dem ndax dafa teguwul ci màndu teguwul ci njub ma ko looloo tax mu tàgguma tàggu buur ma tàggu ko tàggu taalibe ñu dem ba ca ngoon ndeke digal nañ ko ni ko na ma menacé te bu ko dee def na ko yónni sëriñ ab mii toog ma jëkk ba ñu julligee ba noppi rek ma ni ah man daal lu ne dama koy foye te am na yoo xam ne nag foye ko yàq la fekk Serigne Babacar gi ma may benn mbubb bu ne bés bu àddunay tàkk rekk fanaanoo ko waaw dama ndax ci sama maam Cheikh Al Hadj laa ko jële ma ni daal bu ma ko foyee ndax réew mee tax ma daldi di jël ko sol ko mbubb bu rafet la ma toog nag fas yéene fanaan ca perong ba ndax di déglu xew-xew mu wóolu Sëriñ Abdu ci diggu guddi bu dem wuy ji ko mu ni ko Cheikh wax naa ko mu gàntal de wante lu ma def ñoom sengoor danaa ko ko def mu jóge ci ñoo seet si ma jaaxle lool ndax moom lu jëm ci moom du ko jaaxal waaye lu jëm ci man gaaw na ko jaaxal lool ndeke ma ngay wax ak du Doudou Gueye médecin ni ko nu ma koy fëgge laa xamul ndax waxtu bii trois heures du matin jot na te du teggin ma fëgg ko te liit bu ma ko ko waxul feeg ëllëg luy xew xaw ma ko mu daldi jàpp ci yàlla rek ñëw ci perong bi fekk maa nga sañse ba toog wallaay mu wax ma ko ma ni ko moom xamul waaw ma ni ko xamul waaye feeg weer ñaari weer naa ko tontu waaw wala ma ko tontu mali daanu mu ñibbi ba yépp dal ma ni ko naa ko tontu bu keroog waaw waaye ci la nu mujj ndeysaan mujj nanu di xarit piir wallaay wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mujj nañu di xarit piir waaw fa tabaarakallaahu lool rekk la euh, fii euh, ñàkk pas-pas xaju fi xaju fi dafa yàq ak moom jàppe ko mbokk jàppe ko wóllëre waaye itam jàppe ko nag muy sunu kilifa wax dëgg yàlla nu def mukk lu nu ko waxul moom xam na ko moom xam na ko euh, Senghor daf ma daan wax ni ma waaw fii ku fi gëm yàlla léeg nga gis ku fa xëy rek ñëw ni ma wattul de Cheikh Tidiane nangam ti Tidiane nangam ne bu ko defee ma xam ni li ma daj kenn dootuma ca delloo waaw ko defee président Abdou jël rekk miin ñu miin ñu ci àndandoo miin ñu ci àndandoo sama mujj giseek moom bokk nañ ca lanu waxtaane mbiru sëriñ Abdou mi ma ni ko boroom yéene piir la ma ni ko te itam ngay wax muy dugg ci noppam muy wax muy dugg ci sa nopp ma ni ko dina ko encourager te itam rekk ndimbal lay doon li waxtaane nañu ko mu dégg ko fa tabaarakallaahu lii dañ ci yàgg lool lool lool ba mu ëpp mu mel ni kon nag bu nu yeboo rekk xam ni làmbatu ak dof doflu taxul nuy def taxul nuy wax làmbtu ak dof doflu taxul nuy wax taxul nuy def li nuy wax ak di ko def xam pire lu nu ci war a def moo tax nu di ko defe noonu yàlla xam na ko masa lambatu benn yoon waaw 1951 1951 ci la jël position ni ma Mansour Mbaye mën la si nga ni ma am na lu ma tooñ de dana am doole ju xam ne dinaa ko sëf ko xam ne du ko attan ma gerte loolu ñu ne ah sëriñ bi xamuloo kooku nga ne ma ba le 17 juin 1951 ba le 18 ci la résultat yi bett Sénégal yëpp yaa jógee Caire ni ma wax naa ko xam ni li mu wax bi nga dugg man la Cheikh Sidi Ahmed Tidiane koo waxal nga ne ma du ma la ko wax de. waaw waaw bu ñu weesoo le 17 décembre daa ko xam le 17 décembre ci la événement ba am. wallaay. yaa toog fii bi ni leetar bu xam ni kenn ñu ko jàng. ci àddina booba Senghor tiit lool ci réew mi nee na ko réew mi nag maa la ko joxoon wax nga ko ci loo xam ne kenn du ko nekk ci sax loolu tax mu ne du tëddee aussi booba nga koy wax Senghor de Chine et de Colette quand est-ce que tu as retourné dans ton pays d'origine la Normandie loolu passé ñu dellu soit ci réew mi Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor ak Lamine Gueye ànd ñoom wal jooju ak Mamadou Dia dem seetu Cheikh Cheikh Touré ci Guinée nga ne man Cheikh Sidi Ahmed Tidiane day jëwal wéy déclaré ko kees la mi nag Senghor wax ci turé mi ak Mamadou Dia ñu ne Cheikh wax ñu ne Cheikh nee na il wët wéy nga ne ah gars yi nañ leen waxtaan kat bu dawul dul wéy dana réew mi dana dem bàyyi mu comme nañ topp Cheikh Sidi Ahmed Tidiane réew mi dem Senghor yore ko ba bëgg ko joxe nga ne ah man ko benn candidat rek laa am ñu ne kan nga ne Abdou Diouf mooy sama candidat nga ci jàpp guddi ak bëccëg. wallaahi waaye nag yàgg na. wallaahi Momar Gaye nu bokk yaa si kay Sidy Boubacar la gëm. wallaahi Ibra Gaye Sidy Boubacar la gëm. wallaahi ndaxte Sidy Boubacar la gëm. wallaahi kon Cheikh Sidi Ahmed Tidiane mag toom boo nee Abdou Diouf ñëpp ne Abdou Diouf. wallaahi ndeysaan. Jason. Ah. nga kersa kilifa yàlla koy sàkk président Abdou ñu ko miin ñépp am nañu kersa moo lay won ni yàlla ko sàkk kilifteef yàlla koy joxe te bu ne ma wax ko ko àgg naa ci ni ko bala ngaa ñaan loo sëriñ sax ñaanalal sa bopp ba noppi ndax yàlla mën naa bu déggee sa kàddu la mu laa defal yiw lay doon bés bu ne ma wax ko ko bi ci tegu mooy dama dégg ci waxtaanam loo xam ni ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel te moo di li mu tuddee ñetti ñetti révolution yu noppi yi wat na ci ni lu ko ëpp njariñ amul ndax ndaw ñi jigéen ñi mag ñi ku leen boolewul ci liggéey àdduna tukki te gëm na ko nag ndax li ma ko gëmee mooy bi ma ko déggee ci làmmiñam dem naa toog ak moom ñaari waxtu waxtaan ceeg moom te Ahmad Shawqi nee na li ko jaaxal ci yonent bi mooy ñetti révolution yooyu ah baatu yàlla wàcc baatu yàlla wàcc jigéen jëkk gëm muy Xadija jigéen ngëm ci biir néeg mu génn ci ëtt dajeeg xaleel mu gëm muy Ali ibnu Abi mu génn ci néet génn ci ëtt dem ca pénc mag gëm muy Aboubacar Siddiq moo tax àdduna jigéen ak ndaw ak mag a ko amee waaw bu ñu leen encouragé ñoom ñépp ñu taxaw euh, bañ a sàggat taxaw bañ a nasax amul fu réew dul àgg waaw te tubaab yi nee ñu àdduna bi juróomi milliards bakkan la léegi waaw juróomi milliards yi bakkan boo seetee genn wàll gu muy ndaw nga seet genn wàll gu muy jigéen ku leen ci génne foo àdduna jëm ku leen ci génne fu àdduna nun lii rekk la am daje daje yiw ci turu sunu kilifa diine daja daje yiw ci turu sunu kilifa àdduna loolu ku ci génn foo jëm amuloo foo jëm te tabaarakallaahu ñi nu ko séqal itam ñuy ndaw nu ngi leen di encouragé bu baax a baax a baax a baax ndax kat mas naa dégg ci président Maguette loo ca Tiwaawan gàmmu Tiwaawan mu wax fa ñaari yëf jar na bàyyi xel bu jëkk ba ma ko waxe ca sunu way jur di sunu kilifa bopp bi alxaaji abdul aziz daba maa ko dégg de mu ni ko bu nuy waaj jëm si ci yow danuy sonn lool ndax dañuy xam ni bu nu ñëwee fekk fi ku nu gëna a yaru te wolof nee na boo bëggee yar mag da koy gën a yaru waaw moo ko wax de alxaaji Abdul Aziz ni ko bu nu ñëw fii dañuy xalaat lu ne la ñuy def ngir bëgg rekk bu nu ñëwee yaru ndax ku jëm si ci yow rekk rus yaa gën yaru ñépp waaw bi ci des moom nu nuy seen la ko wax mu ni dangeen ngeen di ndaw rekk nangoo jël seeni responsabilité ba moo indi tey li xew tey li xew looloo ko indi xamuloo ba jël responsabilité jotee bu nu lànkoon tëdd tey du nu tax toog fii di wax kon du nu taxaw fii di wax jóge ca daara ja ñëw taxaw fii di wax du nu ko def mukk waaw mu ni nag ba tax na itam ñi jël tey nara sonn ëllëg ñoo fiy wax ñi nangoo jël seeni responsabilité tey tey tey tey jàppale président Abdou ëllëg it ñooy waxi ci réew mi lu dul deñ waaw benn werante nekku ci waaw moo bu nu yeboo rek ñeme ko benn yoon ndax itam du nu leen ko añaane ndax noo leen ci jiitu noo leen jiitu ci taxawaayu pas-pas noo leen jiitu ci taxawaayu yaakaar kon nag bu ngeen toppee yoon wa dafa dalal ku tey te président dafa tey ku tey la ku xam li moo def la fa tabarakallahu mu mel ni kon nag loolu rek lanu bëggoon waxtaan ak yéen bu nu toogee ak yéen du nu doyal mukk waaw wallaay ndeysaan kon nag bu ngeen jógee ngeen rax ci ñaan yi rax ci yitte yi bu nu yàlla yóbboo ca bés ba ngeen def taxawaayu ñu ñor ñu mët def seeni warugar yóbbaale seeni jegeñaale seeni mbokk na ñépp dem joxe seen kart waaw waaw ñépp dem joxe seen carte te it yeddeel nag nekku ci kooku nag yeddeel nekku ci kooku nag yeddeel nekku ci ci ñépp def seen yitte la dara nekku ci lu dul jàmm te itam ngeen boole ci ñaan jàng leen fatiha bu sell julli ci yonent bi ñetti yoon ñu te ba beneen yoonati ci kattanu yàlla incha allah ñaari baytiya ñaari baytiya